Le euh, phénomène yoyu nuñ ko mëna expliquer. phénomène euh ci est qui qui du lu té euh, du euh, dañ koy ak la fin des temps donc day am ay illuminé ñoo xamni dañu di sos lu neex ci am ay nit yu donc lolu dafa am ci Euh, te day continuer ba àdduna ci tukki donc loolu xewoon Kolda ak lii xew ni Touba da nga koy dugal ci biir ay signe euh, de la fin des temps dana am yu gën a ñàng sax yu ñëw ba kooku ñuy wax Masiixu Dajjal euh, l'antéchrist ñëw def yu gën a garaaw encore donc loolu du bett ñi nga xam ni xam nañ diine jàng nañ téere yi ci wàll boobu. Hmm, les wala tiit la am lu ñu war a tiit la parce que loolu day yóbbaale ay nit. yàlla buñ ci borom bi boole ñi nga xam ne seen woyof dafa seen bopp dafa woyof ngeen baal ma euh, te xamuñu fu ñu teg seen tànk euh, te it euh, seen jàng diine des na ñooñu dañuy nekk tentation ci ñoom maanaam dañ leen di fitnaal ci dig leen loo xam ni du dëgg seytaane tamit dafay defar ay nit yoo xam ne di leen jàppale ñu seen kàddu neex a dégg ñuy diggaate yoo xam ne day neex a dégg ko defee ñuy réeral ay nit ñoom seen bopp xadis yi dañuy wax ne dañoo réer di réeralaate kon lu jara tiit la kon responsabilité euh, ulema yi borom xam-xam yi ñu gën a aar euh, jullit yi rawatina ndaw yi dañ leen xamal seen lislaam euh, day engagé wu. mais ñooñ lan moo leen di xiir ci lu ni mel ci lan nañ sukkandikoo lan moo leen di xiir ñuy def lu ni mel di wax ne ay yeneen lañu wala dañoo am diine bu bees lu yokk ci diine ji. ci tënk mën nga wax bànneexu bakkan ak seytaane dafa am lu ñu bëgg ci àddina. Eh, té mënuñ ko am buñu ñu amul mbooloo yu leen euh ñu def leen ay jaam luñ leen sant ñu def dékkal eh, leen ak seen sago ak seen njabot créer leen lu ngeen wax yeen rupture familiale et cetera parce que pour mëna note not nit ki mu nekk ci sa service nga def ko euh il faut nga dékkalé ko ak eh, ño xamni mën nañ euh wañi né ko bul top ki seytaane nak tamit da ci dugg ci moy li ma wax façon nit yoy en général Euh, li tubaab di wax charisme un peu dañuy nekk ñoo xam ne suñu waxee day neex a dégg wala ñu am jëmm bu taaru nii wala ñu mel ne ñu am fit euh, yooyu seytaane moo koy def si ñoom nag day fekk kooku ci boppam dafa jox boppam seytaane jël àllaaxira jëndee ko àddina su ko defee nag léegi euh, mu bëgg ay nit yoo xam ne daf leen di asservir daf leen jaam ñu nekk ci service am. Mm-hmm. responsabilité ñi nga xam ni itam ñoo jiite diine ji ci ci yi ndax dangay gis léeg-léeg kilifa diine mbaa ku bokk ci benn yoon. jël nit di ci kaw di tek ci kaw yalla wala ci kaw yonent bi yoy itam euh, mën na indi ku ne di def lu la neex euh, ba salfaañe li nga xamni mo jaadu waaw lolu lu doy war la en tout cas kuy def lolu euh, bu fekkon kilifa diine la nekkatul kilifa diine ca lolu parce que bu wax kilifa diine benen diine la kon kon benen diine la parce que bu ñuy wax kilifa diine mom dafa am lu mu kilifa diine bo sété ba du deret du dara ay charte la xam-xam la ak taxaway ragal yalla ak xam-xam ak mën a doomu aadama yi motax ñu naan kilifa diine xam nga kilifa dañuy delu ci mom motax ñu naan ñak kilifa baaxul et cetera kon ki nga xamni mom ci bopam euh, ñi sos tali xey mom yalla ak yoonte bi lañ wax ñu leneen c'est sûr c'est sûr mais euh, bien sûr donc motax bo boo ci seen jangale yi seen téré di nga fa fekk lu leer légui nak nit mën justement comme bo jëlé kaw tuba bobu nga wax légui ni même cas u Kolda bi da nga gis ne toujours nit ki ak tamit keneen boo jëlee kooku ñu wax El Cheikh par exemple di woté Madi. toujours dañuy jéem a euh, lëkkale li ñuy woté mag ñi pour am légitimation spirituelle parce que xam nañu nit ñi gëm nañ mag ñi. ñom Zeyda Zaman ñom Zeyda Zaman gis nga jéem ki donc euh mais mais ñi xam téré yi euh, xam alcorane xam hadith yi xam téré yi xam mag ñi lu ñu bind jàngalé ko euh, duñ ko nangu bo jëlé par exemple. mag ñi kenn du ñom kenn du ñom kenn du ñoom ci jàngale lu leer ak wooñu ci l'islam bu set wecc boo jëlee par exemple kaaw bu mujj bi Touba bi nii mais ki ki ki ma gis ci vidéo bi ci daayira bi mais soo gisee réponse bi mu joxee nga xamni il connaît très bien le dogme daf ko ne lii ngay woté li ñun xamuñ ko fi fi jàkka tawaf tawaaf ñu koy défé màkk et cetera nga xamni ni kii xam bu baax fu muy teg tànkam et que kooku ñëw di jéem forcer forcé kooku moo bëgg indi affaire affaire u seytaan phénomène boobu nan lañ koy takalé lay parce que mi ngi tambalé di bëri nan lañ ci wara a nan nañ ci wara a ba mu tak du yomb nak xam nga lutax parce que euh, la nature de l'état laïque xam nga état lay mooy état boo xam ni day permettre ku nekk nga gëm la neex tant que jéemoo ko forcer nit wala ngay def trouble à l'ordre public et moo tax gisoo même kooku nekk Kolda jàppuñ ko parce que dafa woote yeneen dañ ko jàpp parce que dañ affaire pédophilie xaw ma nangam nangam. xale bu ne da koo def soxna. am fukki at ak benn xaw ma ñett war que ci wàllu boobu et cetera mais ci nga gëm. loolu neex waaw laa ikraha fi diin hmm. donc maintenant jullit yi ñoom ñoo war a gën a xam li ñu gëm lan la mën ko défendre te loolu ci xam-xam la war a tegu loolu mooy rôle ulama yi muy jullit di catholique est-ce que ne ci diine bi nga nekk nga jàpp ni mooy bi gën waroo caa gën a euh, seet sa taxawaay ci sa njaboot ah kay foofu foofu nga war a tàmbale te d'ailleurs bi nga waxee catholique boo demee ci évangile et cetera di nga gis euh, li ma lay wax léegi ci affaire u axiru zaman di nga gis Jésus di wax ne ñu bëri dinañ ñëw en di ba tudd ma woote woote xaw ma ndax seetlu ngeen ko seetlu leen ñooñu léegi ñu ci bëri dañuy tudd Issa man maay Issa bi dellu si ça veut dire qu'il a quelque chose qui est imminent ante man laa ko noonu laa ko jàngate Issa day waaj a dellu si loolu catholique yi ak jullit yi d'accord nañ Issa day dellu yàlla seconde venue de Jésus léegi nag dafa mel ne seytaane mooy commencé gën a bëgg a yëngal loolu mais bu ñu échappé que ni loolu dañ koy waajal <coughs> mais kon muy catholique muy jullit looy gën di xam sa gën a xam fooy teg sa tànk donc euh, yar njaboot bi donc phénomène yooyu ngeen di wax répression mënu koo régler

Hmm. sànq ñu ngi tudd waaye Kolda boobu doon woote eh, ab yonent eh, te tabax eh, kaabaam ca àll ba. Ah. nga ni. Euh, tabax dara ci àll ba. du kaaba lu hmm. moom kay dama ko def entre kii ma. waaw wax nga dëgg kaabaam wax nga dëgg kaabaam parce que voilà kaaba moom kaaba yàlla la. heureusement kaabaam kaabaam waaw. léegi moom mbiru viol moo tax mu ne ci kaso bi sax ndax gone googu ma doon jabaroo. te doon tuut tànk wàllu viol moom fan yi dafa doon coow ci réew mi li ñuy taqal Ousmane Sonko. lu ci sa gëm-gëm ci gis-gis eh, ak jangat wala da nga maandu bon affaire viol awma ci gëm-gëm lima lima lima xam moy que ni eh, lu ñaaw la c'est abominable ko ko meuna def def eh, kuñ ko def tamit euh kuñ wara a la jappalé ko yoon daf ko wara a muy ci droit bi ñu am fi muy ci l'islam kon viol l'islam num defini definir viol moy ci ci ci ci jëf yu gëna ñaaw la bokk viol ben techniquement num ci wax lan lañ mëna lan mëna jappé viol crime le crime la waaw si c'est un crime ci l'islam euh viol mo gëna ñaaw sax ndialo parce que ndialo mën nga wax ni euh ko am jabar dem ndialo li ñi wax consentement ñaari magum jëm yu ndialo lool rek gis nga ni islam lam ci wax bu fekke feñ na châtiment bi atté bi nu metté rawati na nak sif donc crime eh, la bo xamni bu islam don atté bu sharia di atté bu amé ay preuve ci ne nit dafa violé euh, atte bu metti euh, moo koy dal euh, am na sax ay uléma yoo xam ne dañuy wax ne sax faat mën na ko cee fekk mais li ñuy wax taasir juge bi mooy xool empleur bi bu fekkee ni par exemple viol la boo xam ni dafa accompagné wu ak nit ki dee ñu xol liñ kon kooku mën nañ ko faat parce que mën nañ wax ne viol bi mo occasioné kooku ndaw ci dé bu fekkee ne viol bo xamni la daf ko lagalo rek wala yóbbu fitam ba indil ko problème psychologique juge bi mooy loolu la ñuy wax taasir ci dans le droit islamique juge moy évaluer peine bi kon de toute façon euh c'est un acte abominable ci l'islam euh aussi droit bi ñu am aussi c'est c'est normal que ñu euh jappé ko lu doy waar mais est-ce que l'islam ak droit ñoo bokk perception manam bu fekkee ne nit ki dafa sakku ku jigéen ki ta andu ci rek euh, viol amna est-ce que l'islam tamit non la ko définir waaw waaw fofu mom ci principe c'est c'est la même chose waaw comme ni ñu définir ni viol par menace moy menace euh, ak euh, contrainte euh, dites nit ki jaay nit ki doole euh, yóbbu fitam euh, mais amul tuuti contradiction ndax l'islam ci mo wax jigen buñ koy denc buñ ko kobosé warta gantu L'olé, itam. non attends attends Babacar. Ah. là tu es dans le cadre conjugal. ci élage bi mu opposé. ce principe bi droit jamono. yow viol conjugal ngay wax. mais mais voilà. ah voilà voilà. loolu benen affaire la viol principe bi moom amul différence ni niko ni droit définir actuellement gisuma problème ci mu ànd ak définition islam ci ci ci viol euh, sàkku nit te neexu ko moo xam da nga ko jaay doole moo xam ko bett et maintenant li ñu viol conjugal maanaam nga ñu ki ñu naan jëkkër dafa violé jabaram loolu c'est loolu am ci l'islam c'est plus complexe loolu euh, fan yëpp maa ngi ciy liggéey d'ailleurs di ci gëstu c'est plus complexe mais euh, ce qui est sûr c'est que li cosaan ci l'islam mooy ni